وسلم على على الجميع muy nuyu mbooloo mépp ومسبق أولاد شيخنا di jiital nag waa kër Cheikhna yi waa kër yonent sallallahu alayhi wa sallam والمقدمين من التلاميذ وأولادهم ak ñi nga xam ni yàlla leen jiital ci biir taalibe yi taalib di doomu taalibe yu mag yi ak seeni njaboot وجميع ak ñëpp ni fi teew ak fut waay bokk ci tarixa boo mën a bokk maa ngi lay nuyu ñoom ñi nga xam ne dañoo teew teew tey ci bis bu màgg bii eh, ma ñu ñaan yàlla di ko gaaralal jaamam bu màgg boobu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla ci barke alquran bi nga xam ne moom la ñu ubbee bés bi yàlla yàlla defar situation yi ci Sénégal hmm. yàlla yàlla delloo xel yi ak xol yi yépp ci dëgg ak dal ak dal ويعلم الجميع عن الدنيا زائلة te mbooloo mi àddina bi yëpp war nañu xam ni nit ñëpp war nañu xam ni àddina day wéy saxul wala xad yitkaayis fiha moo tax ba tax na kuy nit ku ne te am xel war nga boo nekkee ci àddina nga dal am xel te teey sa digganteeg àddina an xad sharik ifqat anu jazaau jahannam ndax ku fekkoon kuy rey nit sax nga ŋaang ci ni ko reye ko nii ma defe ko nii yow moomu sax safara la lay yàlla fayee ëllëg rawatina ki rey fitna te nee na fitna nag ku koy bijji di ko xëcc na nga xam ni yow ko yàlla rëbb nga wa shaab sénégal <laughs> يقودوه رجاله لو nee na peuple dafa am ñu koy ommat ñoo ñan lañu maa hawnaat ya régage ma yaqudu nee na ñun ñi ñëpp ku ci ne attan nga Sénégal mën nga omat senegal mën nga diri senegal mën nga yenu senegal huma li ñoo koy jiite ñu mel noonu nag

ulaan qad nacd saalixiin nee na góoru yàlla yu baax yi yàlla wàcce Sénégal ku leen lim juum baa nga fàtte hada lahum kaamil nee na li fi ne ñëpp fii talaamid naxna suñu taalibe ngi ci fii talaamid hum seeni taalibe ngi ci kon kay ñoom ñoom ñoo ommat Sénégal ñoom ñoo yenu Sénégal ñoom ñoo borom Sénégal même ku nekkul fii nekk bitim réew tey sénégalais ci ñooñu nga bokk tijaan nga mbaa nga ñooñu sëriñ soosu seen yoon mooy lan fu jëm ci yàlla rek إثارة الفتنة صار وقليع من الناس أموالهم والدق دي kon nag nee na kon fitna ju bari ji telli telli ji xeex bi xëccoo bi fëf alalu nit ñi lii lépp a xaddit lee addal lee baat yarad istixmaam cheikhu annu maa wali door ku dem bay def loolu koo mën a doon xaadir nga ne ah sama sëriñ bëggul li murit nga nga ne ah sama sëriñ bëggul li tiijaan nga nga ne ah sama sëriñ bëggul li laayeen ñaseen nga ne ah sama sëriñ bëggul li ndax xam nga lu tax sunu sëriñ yi bëgguñu loolu ñoom dañu xool alquran ak sunne rasulullah lu ñu sant yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal yal na yàlla indi jàmm ci Sénégal ndax jàmm ci la lépp xaj ci moom te it moo jig ñëpp yàlla ko def ci Mauritanie yàlla ko def Mali yàlla ko def ci Afrique gépp ndax jàmm